maa ngi dégg des hommes courts aux idées très courtes muy opposition bi nga xamante ne maa ngi siy dégg ab ndaw bu tudd Barthélémy Dias di def ay menaces. ma koy xamal ne bul jàpp ne gis ma si caméra yi seen ma Paris da nga foog ne dama fay toog maa ngi fi Sénégal ñibbisi naa dama bëgg nga arrêté ta nga yem ku génnewul pistolet tiré ko si kayu nit kenn du ko accusé ba ñu koy jàpp. tu as devant tout un peuple da wuy si par force. danañ la daan danañ la kon condamné parce que liñ lay tumaal yow yaa ko def say menace nag laa bëgg nga arrêté ko jàppal ne président Macky Sall am na ay ndaw yu mat ay ndaw am na ñu ko matal am na ñu mun a xeexal république bi am na ñu mun a xeexal démocratie ñi fi nekkoon démb tey ñu ngi fi toog ñu yoroon doole opposition bi xam nañ leen bu baax ñoom ñoo rangé wu tey di jàppale président Macky Sall Barthélemy xam nga man xam naa xam nga ne jinne pesu la te lu a pes te yàlla suñu borom